Yankhoba Sagna ñu ngi lay nuyu di la dalal maa ngi leen di fay tamit leen di jaajëfal bu baax a baax di nuyu seen auditeurs yi. nga doonoon jaraafu euh, Sindia euh, responsable euh, mouvement également bu Rare tey ca Nord Sindia boobule ñoo ngi déggaat ay gànnaay lan la ñu mën a jàpp tey ca la fa xew. waaw lu ñu mën a jàpp mooy. dimanche bi passé armée Sénégal dafa wàcc si Nord Sindia. Mhm. ak ay yoo xam ne yu mucc ayib lañu. ak ay ay militaires yu bëree bëree bëree bëree. bëree bëri yoo xam ne euh, euh, ñun daal mënuñu ko lim mais ñëpp ñu gis mouvement bi euh, am nañu njàqare ak tiitange boo xam ne dara tegu si lu dul dégg ay sox sox yooyu ba ñu commencé di tàmbali tout de suite population yi comme daf leen jël en surprise parce que dañ leen bett. Mm-hmm. donc ku ñu bett nga dégg ay sox te mu nekk loo xam ne moom moo taxoon nga dawoon dem làqu si beneen réew soo déggaatee ay sox xalaat naa ni doo toog donc loolu mu tax ba ñooñu tamit ñi daal di commencé wax lu ñu mën a attan ci daw parce que seen bagage yi moom foofu lañ koy bàyyi mm. jur jeeg euh, bagage yi diis yi yëpp da ngay jël sa euh, saak bu ndaw def si li nga si mën a def wala sa ëmb nga takk si li nga mën a ëmb loo xam ne mun nga ko téye di daw ak xale yi ah, xale yi nga mën a euh, ànd ak ñoom ngeen di daw euh, daanaka lu ñu naan sauve qui peut maanaam euh, ay bu jubee rek euh, ku nekk day nit ñi dañuy dañuy dañuy daw si sance yëpp mhm. doo xam fii ngay jublu fi et parce que lu leen bett la parce que nit ñi dañuy demoon ba am yaakaar ci waxtaan yi nga xam ne ñoo doon am ak entre MFDC ak nguur gi ba depuis léegi mu mot ay fukki at mhm. kenn déggul ay lu ñu naan ay ay mhm. maanaam ay ay ay ay ay ay mouvement ay xeexoo euh, yu am ci diggante boobu mm-hmm. donc ba nguur gi ci boppam commencé dugal si loxo pour wax nit ñi daw làq yi dellu si leen euh, ngeen ñëw nekk seen euh, jëlaat seen seen seen seen dëkk yi ngeen ñëw dëkk fi ngeen dëkkoon donc loolu ba mu amee mu am ay partenaires ay haut commissariat réfugié ay CICR mun ma leen lim ñoom ñëpp ñoo xam ne ñoom tam dugal nañ si seen loxo maanaam li dugg ci xaalis pour que Euh, daw waa daw làq yi dellu si si seen dëkk war na ëpp ay milliards donc mais milliards yooyu yëpp dafa mel ni tey dañu tuur essence si kawam daal di ko taal. kon dëgg bëgg ni opération militaire yi effort yi ñu def ba fii lépp la yàq. waa effort yi ñu def ci waxtaan effort yi ñu def. ci dalal xelu nit ñi ba nit ñi mun a euh, daw làq yi ba mun a ñu mun a dellu si seen dëkkuwaay effort yi ñu def ba mun a tranquilliser sur le plan psychologique parce que bul fàtte ni affaire bi euh, psychose la si si si si nit ñi parce que dafa demoon ba même léegi nii da ngay dégg ku ñëw naan la nii non bu nekkee yow da nga rasta da war a wotu mais man loolu man loolu man loolu daf may jaaxal mm-hmm. ñaata Sénégal la ñu am euh, donc maanaam Casamance daal nit waru fa dund euh, dund euh, lu mu lu mu gëm gëm-gëmam mënu ko dund euh, Casamance entièrement maanaam pour ma leeral mbir mi mhm. bu ma jëlee ni man Baye Baye Fall la mhm. dama war a def ay rasta mhm. wala man maanaam rasta dafa ma neex même bu nekkee nekkuma bàyyi Fall dama koy def euh, loolu dañ koy interpréter sur le plan psychologique comme risque la parce que boo ko defee rek dañ lay jàpp ni rebelle nga donc maanaam mooy nit ñi xamuñu rebelle nu muy solo nu mu mel et cetera donc euh, loolu dafa poser problème te loolu warta warta nekk war nañu bàyyi nit ñi ñu dund seen seen bëgg-bëgg comme nuñ ko nuñ ko bëggee noonu mm-hmm. man su ma nekkee euh, murit war naa dund biir Casamance war naa dund biir Casamance comme nu ma mënee dund biir Touba maanaam waruñu moo wax ni yow mu murit nga boo nekkee Touba mun nga def ay rasta mais bu nekkee si nga nekk danga war a watu ndel alors que moom euh, sur le plan culturel mu ngi identifié wu à travers euh, solin bu muy sol mooy peut-être ay bàyyi laxat yi muy sol mm. wala mu ngi identifié wu ci euh, rasta bu muy teg si boppam donc loolu loolu fracture lay andi fracture lay andi te loolu lu musiba la musiba la moo tax dama ne armée bi buy dugg si zone yi mel noonu dafa war a bàyyi xel si suñu cosaan mm. suñu culture mu bañ ko faagaagal mu bañ a naan ni képp ku euh, solo nii képp ku mel nii ñun dañ lay jàpp ni rebe dama jàpp ni man présomption d'innocence mm-hmm. dañ ko war a dawal respecte aussi règle de la guerre bañ a uh, di uh, sox euh, ndel ndel ci kenn koo xam ne yorul gànnaay képp koo xam ne yorul gànnaay da nga war a jàpp ni civil la. Mhm. ba ba ngay gis ni mu ngi euh, mu sa position wala mu ngi lay lor. donc man loolu euh, mooy li nga xam ne jàpp naa ko moo tax ma ne dafa mel ni effort yooyu yëpp. Mhm. sur le plan culturel. Mhm. sur le plan économique parce que nit ñi commencé di ñëw. ñu dépensé xaalis yu bëri sur le plan social. sur le plan psychologique parce nañu ba seen xel yi di commencé di dellu si di gëm ni euh, jàmm dina am ci Casamance. loolu yëpp dafa mel ni dafa yàqu. tey ñu naan ci xibaar yi Gambie bi euh, jamono ji moo ngay dalal ñi nga xam ne dañoo daw jóge si Sindian euh, wala euh, si alentour yi gox-goxaan yi nekk ci ci ci frontière bi wutali Gambie ndax li ni mel da nga koy confirmer. oui lu am la lu am la parce que Gambie mënu si dara foog mu dalal leen parce que ñaari mbir ñoo nekk si bande frontière yi for mm-hmm. frontière frontière euh, mm-hmm. ethnique du même chose ce sont les mêmes pop yi ñoom ñoo nekk ci euh, ñaari côté frontière bi mm-hmm. donc euh, ñi nekk di daw di jéem a ut foo xam ne foofu la ñuy la ñuy gëm ni bu ñu fa eggee dinañu mën a am seen Euh, seen seen jàmm ñoom euh, amuñu am am am am amuñu préférence ñoom l'essentiel nañu mucc rek hmm. donc donc dañuy daw donc si population yooyu am na ay population gambienne je je je rappelle am na ñoo xam ne ay gambien lañu ñu ay sénégalais parce que tiir mooy sox yu armée bi nekk di sox noonu si hmm. côté boobu euh, day dem ba laal même territoire gambien donc ñi nga xam ne ay gambien lañu di dund foofu ñoom tamit ñoom ñu ngi jël seen bagage tamit di daw donc sénégalais yaa ngi daw utali Gambie gambien tamit ñu ngi daw yeneen euh, dëkk ci hmm. biir Gambie yoo xam ne euh, dañuy jàpp ni peut-être mbir mi du leen fekk foofu waaw boo jëlee ay dëkk yu mel ni Kampanti ay dëkk yu mel ni Kafuta euh, Kafunda ay dëkk yu mel ni Bale ay dëkk yu mel ni Kappa ay dëkk yu mel ni Sibanoor ay dëkk yu mel ni Bale wax naa ko sànq hmm. dëkk yooyu yëpp dafa nekk ay dëkk yoo xam ne ñu ngi nekk si bande frontalière bi mm. donc bu ñu déggee ay sox képp koo xam ne yow euh, mënoo muñ loolu musoo dégg loolu sox yooyu mm. lan ngay def da daw da daw te problème bi mooy bal yi doo xam fan lay jógee ak fan lay dal donc da daw rek dem mucc donc Gambie mu ngi commencé bon euh, réfugiés yi bëri nañu ñi nga xam ne daw laax yi bari nañu lim bi amaguñu lim exact bi mm. mais bëri nañu am na benn situation humanitaire boo xam ne vraiment nit ñaa ngi koy vivre foofu moo def appel aussi solidarité pour que nit ñi képp koo xam ne am na loo xam ne jàpp nga ni war na mën a njëriñ sa moroom doomu aadama d'abord nga dug nga nga def ko dugal ko ci ñi nga xam ne ñu ngi jàppale waa daw làqu yi maanaam dërëm nga am mhm. jëre nga am mhm. euh, euh, garab nga am garab boo xam ne euh, parce que bul fàtte ni am na ñoo xam ne dañuy amee ay tension ak ay diabète ak ay ñoom mhm. seen donc bu dawee loolu duñ seen garab yi duñ ko yóbbaale dañ koy bàyyi si ginnaaw donc képp koo xam ne ay mouvement humanitaire ay SOS médecins ay euh, médecins sans frontières. Mhm. ay haut commissariat réfugiés ay CICR ñoom ñëpp euh, am na commencé nañu di dem mais képp koo xam ne mun na si dugal loxoom mu dugal si loxoom pour mun a euh, jàppale waa daw laaxu yi nga xam ne ñu ngi nekk foofu si biir Gambie. donc actuellement. Mhm. Gambie moo nekk di dalal daw laaxu yi. amul benn daw laaxu boo xam ne des na si bande frontalière bi ñoom ñëpp dañuy daw dugg. Euh, Gambie. ànd nga ci ñi ne euh, mbir mi du ci gànnaay yi lañ koy régler. waaw bon man yàgg naa ko mbir mi du ay mbirum gànnaay moo koy régler. Mm. parce que gànnaay moo tax ba ñu egg fu ñu egg nii. Mm-hmm. mbir mi bo visiter histoire bi di nga xam ne mouvement la boo xam ne mouvement euh, genre marche la woon rek marche boo xam ne ñu doon def marche bi yoruñu woon gànnaay seen loxo neen lañ doon kii ci cëppandoo ba. mu am ay sox yoo xam ne dañ leen si sox mu am ñuy fa loolu mu créer frustration ba mu am ñoo xam ne euh, dañuy daal di jóg euh, daal di dugg ci àll bi commencé di wut ay gànnaay pour jàmmaarloo mm. mais départ bi nekkuloon ay jàmmaarloo donc moo tax problème bu mel noonu ñu commencé di waxtaan ba ñu gis ni waxtaan bi mu ngi jur euh, dal mm-hmm. waxtaan bi mu ngi jur ñi dawoon ñu ngi dellu si. Mhm. ba man nguur maa ngi dugal sama xaalis am ay partenaires yu si dugal seen xaalis mhm. waxtaan bi mu ngi tax ba géej nañu dégg ñu naan ni ay braquage am na fii braquage am na fële. Mhm. géej nañ ko dégg. Euh, waaw donc loolu su amee lan moo tax tey waxuma du rebelle yi ñoo jóg du MFDC moo jóg mais armée moo jóg dem attaqué lan moo tax ñu ne. Euh, vingt 24 janvier mais 24 janvier boobu incident la ñëpp a xam ne ni incident ba mu amee mu am ñu si loru mu am ñoo xam ne dañ leen jàpp tuddee leen otage mais ba waxtaanee jubee mais ñooñu libéré nañ leen le 14 février otage yooyu yëpp libéré nañ leen mhm. ba ñoom ñëpp ku si nekk dem na dem nga sa nga sa kër donc euh, lan moo tax un mois après le 13 mars un mois après la libération des otages mhm. un mois jour pour jour lan moo tax armée bi jóg dem di sox naan di récupérer ay position bu lekkee yow da ngay dem di sox pour récupérer ay position te position yooyu fi nga nekk di sox noonu bali fu ñu nekk di dal xam nga ni ci ay population la ci ay population la donc loolu day poser problème te day remettre en cause euh, processus de paix bi donc man jàpp naa ni en cause processus de de de de de paix moo am parce que même euh, synthèse nga xam ne moom mooy euh, nekkoon si diggante bi di euh, rataxal waxtaan yi mm-hmm. kenn xam na boolewu ko ci xamal ni lii la armée bi fas yéene def donc dafa am rupture de confiance mm-hmm. xam nga rupture de confiance fu mu amee rek donc dialogue day poser problème parce que la confiance est rompue donc naka ngay def ba kooku nga xam ne da nga rompre yow de manière unilatérale confiance waxtaan bi nga doon am ak moom mhm. naka ngay def ba mu gëmaat loolu ba ñëwaat toog si table di waxtaan ak yow en toute confiance gëm la donc loolu mooy problème bi moo tax man dama jàpp ni du arme mooy régle mais discussion mooy régler parce que ñun ñëpp benn lañu benn Sénégal la euh, benn peuple la euh, bu ñu waxtaanee euh, daañu juboo comme nu ko gars yi di waxee. Mhm, waaye nag bu nekkee dañuy indi ay sox ay et mhm. parce que tey ki ñu rey euh, papam wala ku ñu rey euh, magom wala rakom mm. xamoo nu muy réagir donc mooy frustration te loolu ñun en tant que civil ñun mënuñu cautionner intervention moo tax ñu ngi ñaan nguur gi mm-hmm. euh, ngir yàlla mu sus mu mu arrêté mm. wax mu suspendre opération de ratissage boobu dellu si table de négociation table de dialogue bi mm. parce que pour man tey MFDC jógewul ci table de négociation bi. Mm-hmm. mais euh, euh, nguur gi mm-hmm. moo jóge ci table de négociation bi parce que moom moo autorisé opération de ratissage bi ci euh, base yi nga xam ne Salif Sadio moo ko détenir. Mm-hmm. te ay accord ñoom ñoo tax ba ñu naa ne léegi da di cantonné wu fii bu leen jóge foofu ñoom ñu respecté seen cantonnement armée am fu mu cantonné wu donc ñu continuer di négocier di négocier fu ñu waxtaanee ba fu ñu amee. Euh, loo xam ne luy ànd la daal di taxaw foofu. mais lii day créer lu ñu naan psychose maanaam euh, euh, xel bu dalul ensuite day créer problème économique parce que daw laax yi daw noonu. ci mm-hmm. jamono yi période bi nga xam ne. ñu ngi nekkoon si tool yi di góob gerte gi. ñu ngi nekkoon si tool yi di defar ceeb beeg mm-hmm. ñoom seen. loolu yëpp bàyyi nañ ko seen kër yi walla si àll bi. ci àll bi ah waaw loolu yëpp. Euh, di ay toolu gerte nga xam ne campagne arachidière bi xam nga mu ngi door a mhm. euh, yàgg na commencé mais si côté boobu mu ngi door a commencé li jëm si ceeb bi li jëm si dugub bi mbay mi maanaam loolu yëpp ak euh, yar bi mooy jur yi yooyu yëpp gars yi sànni nañ ko foofu si seen dëkk yi ñu daw uti feneen fi fi ñu dem noonu amagul disposition économique boo xam ne moom la ñuy dundee ñoom foofu. donc dañuy yelwaan il faut gars yi jàppale leen pour ñu mën a dund alors que fu ñu nekkoon ñoom amoon nañu benn tissu économique boo xam ne moom moo taxawoon déjà di leen di jàppale ci côté boobu d'accord euh, monsieur Sagna ci tënk rek tey jii ndax euh, buwaa bi dafa bokk léegi ci enjeu wu crise bi euh, gorum garab bi mhm. dafa bokk ci enjeu économique ak enjeu environnemental enjeu climatique moo tax même ñun jàpp nañu ni gorum garab bi dañ ko war a criminaliser maanaam euh, fu ñu jàpp ngay gor garab dañ lay war a jàpp comme koo xam ne da nga rey nit. Hmm. loolu mooy criminaliser hmm. waaye gorum garab bi warul bokk ci conflit Casamance dañ ko war a séparer. conflit Casamance conflit politique la c'est un conflit politique. Hmm. donc ça doit se régler politiquement par le dialogue et non par les armes. problème environnement bi mooy problème gorum garab bi problème environnement la problème mu dérèglement climatique maanaam tàngoor gi am actuellement si euh, suñu dëkk yi ak si àdduna bi dañu jàpp ni gol dérèglement climatique boobu bokk na si waaye tamit euh, désert bi nga xam ne ñu ngi ko amee ci kaw mu ngi commencé di menacer partie sud bi mais góorom garab boobu waruñu ko def problème boo xam ne problème Casamance la mais problème la boo xam ne dañ ko war a gérer entre ñaari réew yi mooy Sénégal ak Gambie. Hmm. parce que garab yi nga xam ne yooyu la ñuy gor Casamance euh, garab yooyu chaîne de valeur bi maanaam boo déggee ñu naan chan chaîne de valeur. Hmm. maanaam booy gor garab bi si bi ngay jël euh, semine bi ngay jël pour gor garab bi. Hmm. li ngay xaree garab bi oto bi ngay jël pour yóbbu ko. bi nga ciy def ak. Euh, ñi nga xam ne ñoom ngay fay si liggéey boobu mhm. ak port bi nga xam ne boobu lay génne pour dem bitim réew sen de valeur boobu yëpp Gambie lay profité te Gambie xam na ni ay million yi millions yi euh, ay millions tonnes lu euh, bant lii mhm. di génn ci pooru Gambie nga xam ne circuit officiel la parce que lépp loo xam ne si pooru réew la génn loolu officiel la loolu du contrebande loolu officiel la xam nañu fu mu jëm Chine la jëm si bande frontalière boobu am na ay siir yoo xam ne dañ leen taxawal ay siir yu bees si diir yi yàggul euh, ba Adama Barrow ñëwee euh, mu daal jël engagement ni yooyu yëpp dañ koy dàq mais léegi la affaire bi gën a tar. d'accord euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, monsieur Yankoba euh, Sagna ancien maire bu Signa. maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen tamit. Mhm. di leen di ñaax di leen di ñaan tamit ngeen jàppale ñu. ci mhm. plaidoyer bi ñun plaidoyer bu ñu nekk di def nii en tant que civil c'est un plaidoyer humanitaire. mooy ngir yàlla armée bi na arrêté opération yu mu nekk di def si Nord Sindian. mais armée bi. mooy njiitu l'armée bi mooy président la république mooy Macky